mooy liñ ñu xamee woon maanaam communication boo xamante ne dafay wékku ci échange direct entre ñun ak yéen ci li nga xamante ne moom mooy projet biñ mës a défendre lorsque nous étions dans l'opposition bi nekkee ci opposition bi te tey projet boobu à travers la communication à travers ñi nga xamante ne ñoo ko ŋànk ka nekk ca bopp ba di président Ousmane Sonko ñu fal ki nga xamante ne moom mooy le président de la république Bassirou Diomaye Diakhar fay ñuy poser ay acte ak ay action yoo xamante ne dafay jaadu ñu vulgariser ko amplifier ko ba ñëpp jot ci ñëpp xam lan moo xew waaye souvent mbir mi itam dina am lu ñuy tuddee des contre-attaques contre-attaques yi mooy ñi nga xam ne ñoo nekk de l'autre côté dinañ fexe jéem a yàq jéem a wax jéem a sos loolu lañu mujjee kon fi ñuy njëkkee tey ci lii nga xam ne moom mooy suñu live bi mooy ñëw ci choix yi nga xam ne gouvernement bi te ka nekk ca booba di le premier ministre Ousmane Sonko jël na ko muy ay décision yoo xamante ne ngir dimbali askan wi la muy décision yoo xam ne nag ka ka taaw ka nekk ca booba ka am gis-gis ba bañ na nañ jël décision yu décision yooyu mooy le président de la république Bassirou yi Diakhar fay ci kaw loolu mu am ay décision yoo xam ne jël nañ ko ba nekk ca bopp ya bopp ba mbokk yi yéen ñi nga xam ne yéen nañuy sene seetaan dem leen laaj ñi nga xam ne ñooy waa tuubaa daan ngeen ko dégg ñu ko daan joytu naan amuñu ndox wala sax amuñu ndox mu neex bi nga xam ne jot nañ ci nguur géeg tay jii nga xam ne matagul ñaari weer weer la ak lu sof as fexe nañu à travers ministre bi nga xamante ne moom moo yor lépp ci jëm ci wàllum hydraulique wàllum ndox di Cheikh Tidiane Dieye ba waa Touba am ndox en tout cas mi ngi amélioré bu baax a baax a baax a baax a baax a baax loolu nag li ko jur mooy yitte boo xamante ne nguur gu bees gi régime bii nga xamante ne la nekk ca bopp ba nga xam ne mooy référentiel bi ñu sukkandiku ngir jëmale réew mi ci kanam ñu tuddee ko projet bi moom moo ko xalaat jëfe ko gannaaw ba nga xamante ne président de la république ànd na ci ki nga xam ne moom mooy le euh, premier ministre Bassirou Diomaye euh, Ousmane Sonko mu ànd ci ak ki nga xamante ne moom mooy Cheikh Tidiane Dièye loolu mbir la moo xamante ne commencé nañ koo liggéey te noonu lay continuer ci jàmm kon bu ngeen laajee waa Touba ci action yoo xamante ne posé nañ ko ña doon ñàkk ndox te ci régime bi fi jóge de 2012 à 2024 dañ doon wax saa su nekkat dañuy am problème ndox du ñu ne problème yi jeex na à 100 pour cent parce que dañuy jox a jot ci doog a jot ci nguur gi waaye dinañ fexe ba lañu sàmmante woon ci ay kàddu ba fii ak ñaari at au maximum comme ni ko premier ministre Ousmane ko waxee. sénégalais yi yëg ne changement yu bëri commencé naa am ci seen dundin te loolu bokk na ci yenn décision yi nga xamante ne jot nañ koo jël bi ma ñu waroon a njëkk a tijjee mooy bii nga xam ne moom mooy ci wàllum ndox mi te waa Touba soxla woon ko lool bu ngeen leen ko laajee dinañ leen ko wax ne leen loolu kat wax dëgg neex yàlla mi ngi commencé à saafara wu te loolu action la boo xamante ne jàpp naa ne baax na nit ñi jot si parce que gis ngeen mbokk yi ndox xëy nañu ko am sax xamuñu peut-être importance bi di ko gis saa su ne waaye balaa ngaa xam njariñal loolu nga ñàkk ko te soxla ko ngay xam njariñ li lool moo tax ku ko xeeb xamoo li xew te kat waa Touba ak Touba na mu toll dëkk bu rëy la ak dëkk boobu ni mu toll bu demee tey ba nga xam ne seenu ñàkkum ndox wala jafe-jafe yi nga xamante ne ñoo ngi ko doon am ci ndox mu ngi wàññeeku yaakaar naa ne kat jëfin la. acte la yoo xamante ne posé nañu ko yoo xam ne kat war nañ ko koo rafetlu bu baax a baax a baax a baax a baax te loolu acte la yoo xamante ne gouvernement bi jël na ko muy loo xam ne des koy rafetlu bu baax beneen bi muy li nga xam ne moo jëm ci wàllum suuf mbokk yi man cees laa dëkk li may wax dama ko xam xool laaj leen Dakar ñi nga xamante ne ñoo dëkk ci wàllu corniche bi wala wàllu lépp loo xamante ne moo jege géej gi wala boog ngeen laaj ñi nga xamante ne ñi ngi ci zone yi nga xamante ne enjeu foncier dafa nekk wàllum suuf mbokk yi yéen ñii di ñu seetaan ak man mii ñun ndaw ñi est-ce que dinañ am fu ñu dëkk est-ce que dinañ am possibilité am terrain yu baax yu taxaw yoo xamante ne kat c'est bien placé ñu woon faa dëkk lu tax ñuy poser question boobu mooy gëm naa ne dinañ ko am li tax ñu koy am mooy nguur gu bees gi fi ñëw dafa décider ne kat injustice. foncière yi nga xamante ne doon def am ci wàllum suuf bay jël suuf si di ko séddale ci ñenn ñoo xamante ne kat ay way politique lañu wala way homme d'affaires yoo xamante ne jóge nañ nguuru Macky Sall woon loolu yëpp dañ koy jël nanguwaat ko tegaat ko ci yoon suspendre ko attribué ko ñi nga xamante ne ñoom ñoo ko yelloo ba askan wi ñu nekk ci suuf nga xamante ne ñoom ñoo soxla tey ay dëkkuwaay ñoom ñoo soxla ay kër ñoom ñu mën a am ay terrain yoo xamante ne ko ñoo fa dëkkee ñoo ko moomee dama leen ci jox exemple mbokk yi. ku ci nekk ci ku may seetaan ku dëkk Touba wala ku dëkk Dakar wala ku dëkk Thiès wala ku dëkk Pout wala ku dëkk foo xamante ne par exemple dinaa koy dégg souvent côté Tivaouane kër kër kër euh, Ndiayeloo yooyu ak surtout côté Dakar dañuy faral di dégg ñu bëri di wax ne kat seen problème mu suuf problème mu suuf gis ngeen mbokk yi boo dëkkee ci benn commune nga dëkke fa yow nga bëgg foo dëkk terrain boo xamante nga war a dëkk yoon may na la nga bind maire bi ne man dama bëgg kat. ngeen jox ma ci assiette foncière bi nga xamante ne commune bee ko moom espace boo xamante ne mën naa koo dëkkee man ak sama njaboot suturloo ko normalement bu ñuy attribuer dañ la ko war a mën a jox waaye yéen est-ce que xam ngeen ne loolu daanaka amatul ci réew mi pour ñu attribuer askan wi suuf ba ñoom ñu mën saa su ne buñ ko soxlaa kat am suuf wala boog suuf si sax ñu jaayee ko noo xamante ne kat prix ba du cher ku ci nekk mën caa jot am foo dëkkee loolu sax amatul. lu am mooy dañuy jël cinq hectares di hectares maanaam lu toll ci téeméeri terrain ñu jël ko jox ko kenn nit mu dogot dogotee ko jox ko ay militant am wala mu jël ko jaay ko jël ko def ko ci xaar poosam loolu mooy li fi amoon ci nguurub Macky Sall loolu yéen ñëpp bi ngeen ñëwee gis ngeen ne kat li njëkk jël décision yi njëkk a jël mooy suspendre lépp loo xamante ne moo jëm ci wàllum séddoo suuf ki fi amoon tabax yi nga xamante ne teguwul woon ci yoon ñuy profité ñu ne hey lépp na dakk Bassirou Diomaye Diakhar Faye jël décision boobu ànd ceeg ki nga xamante ne moom mooy premier ministre am di Ousmane loolu am na fi ngeen gis la xew ca Thiès ca Mbourkat ñun ñëpp a ko gisandoo am ñoo xamante ne demoon nañ ba am deux cent hectares loolu yëpp ñu ne leen day dakk tas nañu ko kon yéen ñi nga xamante ne yéen nekk dëkkee ci zone yooyu nguur gi dina def enquête am defaraat ko te commission boo xamante ne man mii dëkk Thiès. xëy na sax dañ naan sari top xam nañ ko waaye ki nga xam ne xamuñu ko sénégalais lambda bi nga xamante ne Thiès la dëkk moom amul tur kenn xamu ko moom mu mën a dem inscrire ñu jox ko terrain boo xamante ne danaan moom moo ko moom Ibra Diop wala Njaga Njaay kum ci mënti doon ñu ne terrain wam la moo ko moom parce que Thiès la dëkk dafa ko bindu ñu attribué ko mun faa dëkk moom ak njabootam loolu mooy yoon te loolu mooy li nga xamante ne moom la nguur gii bëgg a def yaakaar naa ne yii mooy justice sociale bi nga xamante ne biñ ñëweek léegi commencé nañ cee taxaw pour loolu mën a am te loolu mbir la moo xamante ne dañoo bëgg mu jëm kanam bu ngeen xoolee ni jëm ci wàllu corniche bi ngeen jëm xool ci lépp loo xamante ne moo jëm ci wàllu VDN bi ak jëm corniche bi ku lu jógee géej gi biir Ndakaaru mais ay immeuble ngeen gis ñuy jóg rek kan moo leen ko jox lan moo tax ñu jox leen ko yan condition lañ ko joxee ak ñan lañ ko jox du ngeen mu gis mukk kuñ naan kat kilifa la ci opposition bi ñu jox ko ko déedéet parce que ñi ñu koy jox souvent wàllu politique la yoon la mbir moo xamante ne tegul ci yoon wala boog ñu jox ko ñoo xamante ne dañuy xam askan woowee ñu am accès ci corniche bi te mbokk yi bu ngeen doon tukki tuuti di xool dëkk yi nga xamante ne dañoo am corniche dañoo am maanaam géej bu jàkkaarloog ñoom bu tudd corniche ñu dëkkee fa dañ koy defee noo xamante ne askan wa dañ fay mën a dem féexlu doxantu. profitoo ca ñun nag suñu corniche lu ñu am ci géej gi yépp ci côté woowee dañ koo jël jox ko ay nit ñu tabax fa ay li nga xamante ne mooy ay immeuble yu mag a ba askan wi amuñu ci accès mënuñu faa dem loolu mbir la moo xamante ne biñ ñëwee léegi dañoo ne kat décision yi ñu jël dañ koy xeex ñu ba lu ñëpp bokk ñëpp jot si waaye duñu jël lu ñëpp bokk ñu jël ko jox ko ñenn képp kese dong loolu daf fi jeex bokk na ci décision yi nga xamante ne Bassirou Diomaye Diakhar Faye jël na ko ànd ci ak ki nga xam ne moom mooy premier ministre am di la di di di Ousmane Sonko buñ jógee foofu mbokk yi muy décision yu am solo yoo xamante ne jëlef na ko waa léegi kon ci wàllum suuf ñoo ngi koy jéem a la ba yéen askan wi ku ci nekk nga mën a jot ci suuf waaye wàllum ndox wax naa ko ba jox leen exemple ci Touba te Touba dëkk bu mag la boo jógee ci loolu. waaye mbokk yi gis ngeen rapport yi nga xamante ne génn na cour des comptes génnee na rapport yu dul jeex gis ngeen suñu réew mi dinaa am loo xam ne dinaa si ñëw parce que yàlla bi ma tiim xam na ne parfois man bu politique passé dama naan est-ce que yenn presse yii wala ñenn ñi nga xamante ne ñooy toog ci presse bi di wax bëgg nañu réew mi waxuma la bañ ñu ñu ñuy xeex de loo sama dekkatu sans problème mooy ñii est-ce que bëgg nañu réew mi est-ce que bëgg nañu askanu réew mi est-ce que bëgg nañu réew mi jëm kanam est-ce que bëgg nañ réew mu tegu ci yoon est-ce que bëgg nañ askanu Sénégal ñu am ñu nekk ñoo xam ne ñu woom la ñuy doon am lu ñu def seen poste seen dëkkuwaay baax ndax yow mënoo gis décision yu baax yoo xam ne dafa baax ci askan wi ñu jël ko parce que da ngaa parce que da ngay xeex nit nga dem di ko waxal lu dul dëgg wala di wax ci leneen loo xamante ne amul benn sens ci mu tegu ci lu dul dëgg alors que y a des décisions plus importantes yoo xam ne jël nañ ko ñu waroon ko waxtaane applaudir xalaat ci pousser xalaat bi ba nga xamante ne nit ñi kat dinañ ne lii lañ mooy li nga xamante ne ci lañ war a sukkandiku ngir réew mi jëm kanam waaye da ngay gis ñoo xamante ne ñii da ngay xam ne ñii bëgguñu réew da xam ne ñii sax ñu bañ réew mi la wax ndax parce que am na décision yoo xamante ne bu ko ab nguur jëlee nga war a applaudir war ko rafet rafetlu nga nekk ca leneen di ko ignorer c'est parce que yow bëggu réew ma dinaa leen ci jox ay exemple yéen ñii di seetaan ku ci nekk ci yéen wala sax yéen ñi nga xamante ne sax peut-être bëggu leen mais ñoo ngi fàttaliku mbirum Covid 19 sénégalais yëpp dajale woon seen alal xalif général des Mourides à l'époque su ma juumalee la mu génnee woon est-ce que ëppul 200 millions. ñeneen dugal ñeneen dugal ñeneen dugal entreprise yëpp dugal ñu ne xaalis bi nañ ko jël sàmm ko ba askan wi ñoom kat ñi nga xamante ne feebar bii du coronavirus ñu mën cee mucc ñu sàmm leen aar leen jox leen ñu lekk jox leen ñu naan ñu mën a faju est-ce que li ñu luubal daat koy détourner. ci xaalis bañ naan jege na 1000 milliards waa loolu bu demoon ci askan wi am na koo xam ne xëy na ñàkk na papaam am na koo xamante ne xëy na ñàkk na ci mbokkam xëy na xëy na laa wax xëy na doonu ko ñàkk bu doon tegu na ci yoon tey loolu nag ñu ne dañ koy jël teg ko ci yoon yoon topp ko ka koy def mooy ka koy nga xamante ne moom moo yor politique judiciaire euh, président Bassirou Diomaye jakaar fay di le ministre nga xamante ñëpp xam nañ ak njubam di Ousmane Diagne di le magistrat Ousmane Diagne mu ne dina ko topp ñu jëm ko ci wàllu yoon yoon atte mu am séparation des pouvoirs mooy li nga xamante ne man nekkul ne man Sadikh Top mii rek dañ naan dafa jege Ousmane Sonko wala kat dafa jege Pastef rek ba damay xëy tooñ waa kër Macky sàll su ma ko defee dañ ma war a duma teg ma ci yoon loolu mooy dëkk aw droit di tooñ kenn képp koo nekk sénégalais rek ñun ñëpp ñu tolloo ci yoon ñun ñëpp ñu tolloo ci li nga xamante ne moom mooy justice jaay doole jeex fi yoon tegu fi alal di ñu teg ko ci yoon ñun loolu la ñu bëgg ci réew mi. man mii bis bu ma tooñee ñu yóbbu ci yoon yoon teg ci mbir mi teg ma ci yoon su ma jëlee alalu réew mi ñu yóbbu ma ci yoon yoon teg ma ci yoon loolu mooy dëkk te loolu la bëgg moo tax ngeen gisee Bassirou Diomaye fay ñëw ñu jël rapport yi nga xamante ne ñoo nekkoon Cour des comptes Bassirou le président Bassirou Diomaye Faye ñëw ne nañu génnee rapport yi en l'espace de deux semaines ñu am près de mais rapport rapports OFNAC génnee ay rapport am mbokk yi loolu ngeen xam ne kon rapport yi nekkoon na fi waaye njuba dikk ñi fi nekkoon ak ka nekkoon ca bopp ba moo waral rapport yooyu askan wi mënuñ ci woon jot te suñu alal la nag ñun ñoo ko doon jël dajale ko jox leen ko ñun ñoo ko doon jël dajale ko kat nañ la kat yow mii kat yow yaay président de la république xool leen naka la ñuy defee ba ñun askan wi kat ngeen woomal suñu dundin ñu jël alal jooju détourné ko def ko seen poche rapport am. daan na kat lii la rapport yi wax nee nañ diw mii fa mu dugal xaalis ba waru ko fa woon dugal diw mii luubal na xaalis na war a dem ci yoon nga jël lépp denc ne maa ko jël sama tulwaar nëbbu ko pour askan wi bañ koo gis ngir coow bañ a am loolu la fi ma Sall def président ba Bassirou Diomaye Faye ñëw génnee rapport yépp ne na leer nañ yu ci war a dem justice dem ci justice justice atte mu am séparation des pouvoirs mbokk yi nekkul woon est-ce que nekkul woon lii lañ waroon a waxtaana ngir askan mi mën a xam alalam fan la dugg lépp war a mën a woom waaye defuñu ko ci leneen la ñu nekk te dinaa ci ñëw bokk na ci yi nga xamante ne itam dañ ko war a waxtaane beneen bi mooy lu jëm ci lu am am njariñ wax naa leen ko léegi gis ngeen mbokk yi bi ñu egseeg léegi muy régime euh, président Bassirou Diomaye Diakhar Faye bi ñu jotee ci nguur geeg léegi dafa am décision yu am solo yoo xamante ne jël nañ ko ci te dinaa ci ñëw ci beneen boo xamante ne jar na ñëpp xam ko ndaxte am réew da ngay xam ne muy doxee boo demee États-Unis wala nga dem France wala nga dem ci dëkk yi nga xamante ne dañ naan dëkk yu développé lañu koo ci gis muy lekk lu seen réew bay rek c'est parce que dëkk yooya ñoo ngay bay waaye c'est parce nguur ga am na politique d'autosuffisance alimentaire boo xamante ne moo tax dëkk yooyu dem ba mën a ñoom li ñuy lekk kat duñu ko jéggaane ñoom ñoo koy bayal seen bopp ngeen déggoon ki nga xamante ne moom mooy Ousmane Sonko ak projet bi nga xamante ne moom lañ tënk ñu daan wax naan autosuffisance alimentaire ñun waruñu jéggaane lu ñuy lekk dañ ci war a liggéey bi ñëwee jot ci réew bi ñu jàpp ne yéen askan bi ñun ñii dañoo war a fexe ba suñu lekk yomb ngir mu yomb nag lenn moo ñu koy tax mu yomb mooy ñun ñu koy bayal suñu bopp parce que bu ñu ko jéggaani jee buy dugg si ci réew mi dangay fay transport ba dangay fay taxi ya bu dugg see ki nga xamante ne moo ko fi indi commerçant la day ut lu ca teg bu utee lu mu ca teg nag ba gën a yéeg te ñun bu dee suñu koom bariwul suñu am-am bariwul mbir mi cher ci ñun. ñu ne loolu yëpp nag dafa war a wàcc li tax muy wàcc mooy ñu mën a am mbay moo xamante ne askan wi dinañ mën a gëm ne bay day développé am réew.

conseil interministériel bi nga xamante ne am na ci waajal li nga xam ne mooy campagne agricole dafa am loo xamante ne moo fi daan am maanaam campagne agricole bi nga xamante ne li ñu programmé woon pour campagne agricole ren bi cent milliards la pour waajal ko ñun bi ñu ñëwee Bassirou Diomaye Faye gannaaw ba mu waxtaanee ay ñoñam daan ni dañ koy yóbbu cent vingt milliards ñu yokk ci vingt milliards yoo xamante ne nee nañu dañ ci nañ ci ànd ak ñi nga xamante ñoom ñooy baykat yi ngir waajal li nga xamante ne moom mooy campagne agricole bi ba bu mbay mi baaxee dëgg baykat yi mën cee gis seen bopp ñu yokk ci 20 milliards kon 100 milliards la woon yokk nañ ci 20 milliards muy lépp li nga xamante ne moo jëm ci waajal li nga xamante ne moom mooy nawet bi ngir baykat yi mën a bay bay bu yéwén waaye daa am leneen lu ci xaw mbokk yi mooy ren gii nii décision yi nga xamante ne jël nañ ko nee naa leen suñu alal dañ ko jël luubal ko sànq maa leen ko wax waaye am na lu xew baykat yi dinañ ko ñoom dinañ ko wax parce que ñun dinañ leen jox occasion ñoom ñu mën a wax exprimer wax seen mbëgte wala seen naqar bu dee am na ci de deux mille vingt et un mille vingt deux ba deux mille vingt trois nguur gi da leen a yore leen ay bor te fayu leen ko mu toll ci quarante et un milliards ñoom ñu ciy daw ci nguuru Macky Sall la woon deux mille vingt et un deux mille vingt deux bi nga xamante ne ñëw nañu président Bassirou Diomaye Diakhar fay ak premier ministre am ak ki nga xamante ne moom mooy ministre bi nga xam ne moo yor wàllu mbay lan la ñu def dañoo jël bor boobu ne des koy fay éponger ko ba mu set wecc ba baykat yépp bor yu ñu leen yore yoreloon ñu fay ko képp koo xamante ne tey jii nii nguur gi yoreloon na la bor tey jii nii ñu ngi la koy fay fay bi nag mënoo xëy rek na tay lay doon dañ koy étalonné moo tax jàpp naa ne am na jot a fay semaine bii dinañ fay le reste bu dee def fayeguñ ko muy 40 milliards yoo xamante ne ñoo ngi koy fay baykat yi waa mbokk yi lii amul njariñ ci boobu jamono yéen ngi doon dégg ñoo xamante ne nañ détourné nañ quatre euh, quatre vingt quatorze milliards dégg ngeen fi ñu naan fonds Covid 19 mille milliards détourné nañ ko dégg ngeen ñu naan vingt neuf milliards Prodac te boobu jamono ñi nga xamante ñoom ñooy baykat gi nguur gi ma nga leen yoreloon quarante et un milliards de deux mille vingt et un deux mille vingt ba deux ñu ñëw deux mille vingt quatre fay leen bor boobu nguur ki nga xam ne mooy Bassirou Diomaye Diakhar fay avec ki nga xamante ne mooy premier ministre am di Ousmane Sonko loolu def nañ ko fi waaw lan moo tax waxtaane wuñ ko buñ naan na ñërëm baykat yi. bu ñu naan béykat yi nañ leen jàppale bu ñu naan béykat yi est ce que ngi leen di bàyyi xel naka lañ leen di accompagner ñun dañoo ñëw lañ leen yore leen ci bor ñu fay leen ko waaye yemuñu ta mbokk yi daa am lu am solo loo xamante ne nguur gi daf ko mbokk yi est que xam ngeen ne dañ leen a wàññil la leen nguur gi daan jaayee lii nga xamante ne moom mooy engrais nguur gi lam leen ko daan jaayee ngir ñoom ñu mën a bay bay mucc ayib dañ ko wàññi bu baax a baax a baax a baax te dama leen koy liiral ngeen dégg dafa am engrais boo xamante ne ñoom baykat yi kuy doomu baykat wala ku mës a bay wala koo xamante ne doon ko dugg ci bay di nga xam man xam naa ko parce que doon doon naa duggantu ci bay dafa am bu ñuy tuddee six vingt dix boobu mi ngi doon jar lii nga xamante ne moom mooy ñaari junni di dix mille ñu wàññi ci lii nga xamante ne moom mooy trois mille cinq cent muy jar léegi six mille cinq cent waaw ku doon jënd sac dix mille ñu wàññi la ci 3500 boo di doon jënd tey jii nii lii nga xamante ne moom mooy 10 sacs muy nga daan joxe 100000 léegi am nga 35000 boo xamante ne da nga koy def sa poche am feneen ko mën a dugal 65000 rek ngay jëndee nguur gi biñ ñëwee dañ leen ko wàññil te loolu ci Macky Sall 10000 lañ ko doon jëndee ci nguuru Bassirou Diomaye Faye ñu ngi koy jëndee léegi 6500 muy saako engrais boobu am na beneen bu ñuy wax 15 quinze 15 boobu 12500 lañ ko doon jëndee ñoom baykat yi laaj leen. moom leen ko état doon jaayee ngir ñu waajal li nga xamante ne mooy seen campagne wàññil nañ leen ko dindi nañ leen ci mille 3500 itam léegi ñoom ñu ngi koy jëndee li nga xamante ne moom dindi nañ leen ci 3000 pardon léegi ñu ngi koy jëndee 9500 muy wàññi boo xamante ne am na ci saako bi laa wax saako bi saako bi wàññil nañ leen bi nga xamante ne mi ngi doon tuddoon 15 10 10 sac bi ngi doon jar 12500 wàññil nañ leen ci li nga xamante ne moom mooy 7. wàññi nañ leen ci 5000 ba ñoom léegi 7500 lañ koy jënde dégg ngeen ñu wàññi leen ci 5000 ba léegi 7500 lañ koy jëndee mooy saagu engrais ñoom baykat yi itam wàññi laatal nañ leen ko muy beneen mbir boo xamante ne dafa nga xamante ne mu ngi tudd am façon mbay mu ko tax a jóg dinañ ko leeral après am na boo xamante ne mi ngi doon jar 10 10 20 12500 wàññi nañ leen ci 2500 léegi 10 000 lay jar am na boo xamante ne mi ngi doon jar 16425 léegi 12500 lay jar wàññi nañ leen ci 3925 ba tey sac bi am na moo xamante ne mi ngi doon jar 18750 muy urée wàññi nañ leen 8750 bi léegi 10 000 képp lay jar mbokk yi gis ngeen wàññi yii nga xamante ne nguur gi wàññi na ko ci ay milliards la bàyyee mu dem. ngir yërëm askan wi waaye ngir yërëm baykat yi déglu leen li ma leen wax dañoo ñëw fekk baykat yi ñu yoral leen bor de deux mille vingt et un deux mille vingt deux deux mille vingt trois ñu fay leen seen bor newuñ leen fay nañ leen seen bor léegi am ngeen xaalis de déedéet dañ leen cee tegal na leen léegi liñ leen doon jaayee saagu engrais yi dañ leen koy wàññil. sac bi doon jar 10 000 6 500 beneen 12 500 9 500 bu ci ne au minimum yii ñu wàññi ci 3 500 yii 3 000 yii 5 000 yii 2 500 yii 8 750 sac bu ci ne ñu wàññi ko ci. jàppalee ko baykat yi ngir ñoom ñu mën a waajal seen bay bu baax a baax a baax li nguur gi nguuru Basiiru Jomaay Jaxaar Fay def na ko fi bi ñëwee léegi waaye mbokk yemuñ ci est-ce que xam ngeen ne nguur gi dafa dugal. 35 000 tonnes de phosphate la dugal jox ko baykat yi ne leen lii nag jaayuma leen ko maa leen ko dimbalee accompagner leen ko ngir seen bay mën a baax muy phosphate boo xamante ne ab engrais la ngir dimbali leen. loolu itam ay décision yoo la yoo xamante ne nguuru Bassirou yi jaxaar fay jël na ko gannaaw ba nga xamante ne kii di président soo ko moo nekk premier ministre ba di ko ci accompagner kon baykat yi fay nañ leen seen xaalis bañ leen yoreloon wàññil nañ leen prix yi nga xamante ne moom lañ doon jëndee engrais yi ñoom ñëpp wàññil nañ leen ko waaye phosphate sax jaayatuñ leen ko nañ leen koy may te loolu nag mbokk yi ba Sénégal de Sénégal te tey c'est la première fois que nguur ñëw di def waajal li nga xamante ne moom mooy campagne agricole jël phosphate bi may ko baykat yi na leen dañ leen koy dimbalee xam nañ ne sonn ngeen duñ leen ko jaay ren te moo ne day bu leen neexoon ñu ne dañ leen koy jaay parce que dinañ leen wax ne fay nañ leen seeni bor bor yi démb leen leen ko fay bu ma la ko fayee démb nag tey ma war laa jaayaat lu lay waajal sa campagne man su ma neexoon ma ne la kaay fay ma wala boog ma ne la mënu ma la ko wàññil parce que fay naa la say bor waaye ñun defuñu loolu dañoo yërëm askan wi wàññil leen li nga xamante ne mooy engrais bi may leen phosphate yii décision la yoo xamante ne nguurug Bassirou Diomaye Diakhar fay jël na ko fi yow baykat bi may seetaan bu la nguur gi yoreloon xaalis xamal ne tey jii nii mi ngi la koy fay yow baykat bi may yow doomu baykat bi boo jàppee ne sa waajur baykat la nguur gi yoreloon na ko xaalis jàppal ne tey jii mi ngi ko koy fay 2021 2022 2023 ñetti at ñoo baykat yi ñuy daw ci seen bor bëgguñu fay leen ko nguurug Bassirou Diomaye jaxaar fay ak premier ministre am Ousmane Sonko ñi ngi leen koy fay waaye yemuñu ca de buñ doon jënd engrais exemple rek mi ngi mel tey jii bu ñu ne saaku ceeb bi kat mi ngi jar léegi ñu ngi koy jëndee yenn yi sept mille cinq cent yenn yi ñu ngi koy jëndee huit mille yenn yi ñu ngi koy jëndee sept mille yenn yi ñu ngi koy jëndee neuf mille parce que si engrais bi la donc catégorie ceeb bi pour ngeen dégg ma rek loolu yëpp defal nañ leen ko. wàññil leen ko waaye am ci boo xam ne sax dañ leen bii moom sax nag nag far dañ ko dul jaay dañ leen koy may muy trente cinq mille boo xamante ne yëkkati nañ ko jox ko ñoom baykat yi décision yooyu am na fi waaye mbokk yi fi may daanale mooy coow li nga xam ne am na fi jamono yi parce que am na ci yeneen décision yoo xam ne dañ ñëwaat dafa am lu ma bëgg leen leeralal après parce que ñu bëri ñu ngi wax naan nañu wax nañu communiquer nañ leen xamal xew ñoo ngi organiser wu te daam ay kilifa man lii may def tey du position officielle bu ma am ci dara waaye position bu ma am na ci projet bi ak biir Pastef moom daf may may saa su ne ma jël sama responsabilité su ma gisee ne am na lu ma jàpp ne res na koo leeral wala sooxe na ma jël sama responsabilité leeral ko mooy li may def tey parce que projet bi man ak yéen ak ñun ñëpp ñoo ko bokk te ñoo war a leeral askan wi ba ñëpp yëg li xew. lii mooy suñu yitte te yitte woowu duñ dañ mukk ci di ko def tant que ñoom ñuy jox ñuy noyyi duñ leen mukk ci di ko def ak position buñ mën ci amee parce que loolu mooy relation bi mës a am ñun ak askan wi parce que dañoo gëm ne réew mi dañ ko war a defar léegi mu am lu fi xew li fi xew mooy dañoo am kilifa goo xamante ne dafa am fulla ci boppam ñun mbokk yi président Pastef les Patriotes Ousmane Sonko moom dafa am fulla ci boppam bu amee ku ñàkk fayda wala boog bu amee ñoo xamante ne gëmatuñu seen bopp bu amee ñoo xamante ne jàpp nañ ne ñun suñu alal waruñu koo topp waruñoo kaas li ñu moom ñoom seen problème la waaye ñun li ñu gëm mooy li ñu moomal suñu bopp dañu koy xeex taxaw ci mu am lu fi xew jeudi bi li passé mi ngi ma fekk dakaar man maa nekkoon sax maître de cérémonie bi parce que dañoo amoon gan guñ jóge jële woon fële nga xamante ne moom mooy France di Emmanuel Macron daal di ñëw war a dem université waxtaane fa lan mooy ëllëgug Europe Afrique yan relation yi ñu war a am rawatina France ak Afrique wala boog France ak Sénégal yan relation maanaam relation mooy demalanteeg dikkalante bi ci wàllum koom ci wàllum sécurité yooyu yan relation la war doon naka la war a demee nam daan deme daf ko war a continuer wala dafa war a changer ci wàllu woowu. président Ousmane bi muy def li nga bu ma nee président Ousmane nag bokk yi président Ousmane Sonko bu Pastef laay wax bi muy wax discours am ci ñaari phase la benn phase bi mooy dafa wax li mu déggoo ak Eman ki nga xam ne mooy Jean-Luc Mélenchon li mu déggoo ak moom daan nekkoon ko phase point yi dañ cee déggoo waaye am na point yoo xamante ne déggoowuñ ci donc il y nga xamante ne point yi nga xamante ne ce les points ci ay convergence de vue am point yoo xamante ne point la yoo xamante ne cest des points yoo xamante ne amuñu ci convergence de vue effectivement c'est Mélenchon pas Macron précise jërë ngeen jëf moo tax bu ñu leen waxtaanal wala wax expliquer li xew itam day jaadu yéen it bu ñu defee erreur rek bu ñu ko bindee dañ koy gis kon merci beaucoup Jean-Luc Mélenchon lay wax dafa ñëw Université de Dakar am débat ak ki nga xamante ne moom mooy le président de PASTEF le président Ousmane Sonko ci ëllëgug Afrique ak Europe wala ëllëgoog Sénégal ak France lam daan wax ci opposition tey nag ñun ñu nekk ci nguur gi war a doxal lu ñuy tuddee le projet mu ne léegi Mélenchon xaaral ma wax la ñun man ak yow li nga xamante ne am nañ ci dégg ko mu ne ko France dafa am responsabilité ci li nga xamante ne xew na fi woon suñu réew mi te Macky sàll ba nga xamante ne mi ngi dal suñu kaw ñii ñu leen di gaañ ñii sax dee ci Macron daf ko invité félicité ko na ko da koo def parce que kat da doon sauver sam réew alors que du dëgg ñii leen dong leen bëggoon mooy defar seenum réew loolu responsabilité France la. loolu président Ousmane ko wax na ko ki nga xamante ne mooy Mélenchon te nee na ko jàpp naa ne maa ngi déggoo nañ ci nee na ko itam suñu koom relation yi ñuy am dama leen teg dikkalante bi relation wu respect lay doon. relation égal égale ñun ñu gañe ci yéen ngeen gañe ci waaye dootu leen jël la ci ëpp ngeen yóbbu ko ñun ngeen bàyyi ñoog la ca a tuuti kooku dootul am day deñ parce que ñun réew lañ moo xamante ne léegi dañoo yeew suñu doom dañoo jàngate daa am fu bëgg a dem kon dañuy taxaw xeex ko ngir ñun suñu relation ak Europe suñu relation ak France mu nekk relation yoo xamante ne relation yu égal égal la ay morom la ñu doon réew ngeen réew lañu bu ñu signé partenariat partenariat loo xamante ne kat yéen bu ngeen ci gañee cinquante ñun dañ ci am cinquante égal à égal kii bu jëlee fukk kii jël fukk kii bu jëlee juróom fukk kii jël juróom fukk nee na ko loolu mooy am waaye la fi daan am day jeex loolu président Ousmane ko wax na ko ki nga xamante ne moom mooy Mélenchon nee na ko bu ngeen gisee Afrique ngeen naan sentiment anti français li ko waral mooy seen i comportement wu seen i yi la jukko yi ñuy amee suñuy sonal suñu askan ñu sonn ñu exploiter li nga xamante mooy suñuy ressources ba pare ñoom kat. ñu bëgg ñoo forcer seen gëm-gëm ak seen xalaatin woo xamante ne kat bokkuñ ci gis-gis loolu bu ngeen ñu ko bëggee def nag mooy jur lii ngeen a tuddee tey sentiment anti français parce que africain yi dañoo commencé yeewu xam li ñu bëgg xam fa ñu jëm jàng moo tax yéen ñi boo leen ko bëggee def ñoom it ñu bañal leen ko wan leen ginnaaw loolu dong mooy li fi am te loolu dafa war a deñ loolu ki nga xam ne mooy président Ousmane Sonko wax na ko ki nga xam ne moom mooy Jean-Luc Mélenchon nee na ko waaye situation de pauvreté sous-développement yi nga xamante ne moom la Afrique nekke France kese du ci responsable ak Europe de ñi nga xam ne ñooy suñuy chef d'État suñu élite gouvernante yi nga xamante ne ay africains lañ nekk biir Afrique ñoo am na ci ngandum responsabilité parce que suñuy détournement ñoom la xaalis bi ñuy luubal ñoom la contrat yu bon yi ñoom la te ñoom itam. am nañ ngandim responsabilité ci sous-développement wu Afrique kon tey bu ñu wax situation bi nga xamante ne Afrique nekkee na ko bu ñu nee kat ba joxoñ baaraamu tuuma ñi nga xamante ne ñoom ñooy France dinañ jox baaraamu ñi nga xamante ne ñoom ñooy suñuy gouvernement ñi nga xam ne ñoo ñu doon yilif waaye mën na ko ci li nga xamante ne moom moo jëm ci wàllu Afrique bu ma génnee Sénégal dugg ci pays du Sahel maanaam ñi nga xam ne ñooy Burkina Mali Niger mu ne ñooñu am na yu fa jotoon xew ay coup d'état ñu condamné leen. France Europe condamné yooyu waaye en même temps am na yeneen yu xew feneen bu ngeen ko condamné bu ngeen dee condamné dangeen ngeen condamné avec les mêmes principes principe bi nga xam ne mooy déterminer condamnation ci lépp maanaam bu ngeen dee xeex lenn ngeen xeex ko ba mu jeex tàkk ci béréb bu ne façon yu ne ci dëkk bu ne wala boog ngeen noppi ci parce que nu wet koo xeex fii tey suba ngeen noppi ko fee kooku duñ ko nangu ñun ak yéen waaye nag moom président Ousmane Sonko mën leen waaye daa loo xam ne sax man du ma seetaan waa Mali du ma seetaan waa Guinée du ma seetaan waa Burkina parce que suñuy frère africain lañu dinañ fexe ba déemu waxtaan ak ñoom ñu déggoo defaraat CEDEAO ba lii nga xam ne moom mooy ay chef d'état képp di ànd di def lu leen neex te seeni askan duñ ci gis seen bopp loolu dafa war a jeex kon ay embargo yi nga xamante ne defoon nañ ko fi yenn dëkk yi loolu ñun dootuñu ko def dinañ jéem a dem foofu waxtaan ak ñoom ba ñu am dégg-dégg suñu biir ba ñu nekk benn ak CEDEAO bu dëgër këcc ba Afrique mën a nekk li nga xamante ne moom mooy Afrique bu dëgër këcc loolu ki nga xam ne moom mooy président Ousmane Sonko xamal na ko Jean-Luc Mélenchon waaye waxal na ko ne ko kenn dootuñu imposer nii la ko ko waxee rien ni personne dans le cadre bilatéral que multilatéral ne nous imposera la imposera la politique à avoir suñu politique suñu façon doxalin gis-gis. naka lañ yoree suñu koom naka lañ yore suñu askan fan la ñuy dugal suñu xaalis nekkatul benn dëkk ci àddina boo xamante ne moo ñu koy imposé ñun ñoo koy xalaatal suñu bopp doxal ko suñu bopp xool suñu askan lu mu bëgg ñu dugal fa xaalis ba ànd caag ñoom ba ñu développé wu ndax yéen foofu ngeen jaar ba développé wu ak seen dëkk kon dootu ñu leen suivre amul fenn fu ngeen mën ñu jaar ba nangul ko lii président Ousmane na ko Jean-Luc Mélenchon wax na ko itam ne ko lii nga xamante ne moom mooy base militaire française yi nga xamante ne ñi ngi fii euh, Sénégal wala Afrique dakaar par exemple ngandim espace lañ fa am depuis 1960 ba tey ñu toog fa ne wàgg rek ne du ñu jóg mu leen waaye yéen France xanaa yéen da ngeen a fàtte ne États-Unis ba mu leen bëgg leen defal ay missile balistique 1956 a bañ daan na ko ñun ñoo yor contrôle total bi boo ci bëggee am contrôle ñu lànk ba contrat ba kenn mujj koo signé États-Unis noonu la jëlee ay missile dem yéen da koo bañoon ñun nag ba tey ngeen toog fii loolu dafa war a jeex ñun tamit ñu moom suñu bopp yor di doxalal suñu bopp loolu bokk na ci décision yi nga xamante ne kii di président Ousmane Sonko kat xamal na ko kii nga xamante ne moom mooy genre luc Mélenchon président de Pastef Ousmane Sonko xamal na ko Jean-Luc Mélenchon nee na ko loolu ñun dootuñ ci nangu base française yi dinañ ko remettre en cause dinañ ko xoolaat waaye nag amul dara lu mu yàgg ci suñu accord de défense suñ ko waree corriger dinañ ko corriger waaye base française seen toogin fii après. 60 ans d'indépendance loolu de remettre en cause li nga xamante ne moom mooy suñu souveraineté kon loolu dees koy xoolaat loolu kii di président Ousmane Sonko wax na ko ki nga xamante ne moom mooy Jean-Luc Mélenchon waaye wax na ko ci ressources naturelles yi mu ne contrat yi ñu am jamono jii ci wàllum gaz boo demee Qatar li ko defar gaz la nga dem Arabie Saoudite li ko defar gaz la nga dem fële nga xamante ne moom mooy dëkk yu mag a mag yu ci bëri gaz ak pétrole moo leen defar ñun ñu am ko signé contrat yoo xamante ne contrat yi à l'état ni mel. buñ ko ni bàyyee xëy na fii 15 ans dañ ca war a profité wala duñ ca profité moo tax ñoo ne dañ koy xoolaat dañ koy lijjantiwaat dañ ko xoolaat parce que yéen bu doon yéen a ko am du ngeen ko signé nii kon signature yooyu baaxul te ñun dañoo bëgg suñu askan gis seen bopp ci lu ñu moom te parce que nag ressources yi ñun ñoo ko moom suñu suuf la nekk kon dees na ko xoolaat loolu ki nga xamante ne moom mooy président Ousmane Sonko wax na ko ki nga xamante ne moom mooy Jean-Luc Mélenchon waaye président Ousmane Sonko ba ko waxee loolu yépp nag nu ko loolu yépp jàpp naa ne déggoo nañ ci des na ko xoolaal ngir suñu askan mëntee gis seen bopp waaye nag am na ci côté boo xamante ne nag moom gëm naa ne man ak yow Jean-Luc Mélenchon bokkuñ ci dégg-dégg dama la koy teel leeral parce que jàpp naa ne bis xëy na yow mën nga yor France wala bokk ñu bokk ci sa mouvement yor France bis bu ñu ñu yor France na la leer ne yii man ak yéen ànduñ ci gis-gis ñun ak Afrique ak yéen ànduñ ci gis-gis mooy yi nga xamante ne amuñ ci convergence de vue mu ne ko lu jëm ci wàllu LGBTQ loolu bu ngeen ko déggee mooy jëm ci wàllu li nga xamante ne moom mooy wàllu ngóor jigéen mu ne ko loolu moo nar a nekk prochain casus belli bi war a am entre Occident ak Afrique mbokk yi casus belli xam nga mooy la mooy tas mooy li nar a tas suñu diggante ba ñu tàqali ko ba faw ngeen aw nii ñun ñu aw nii li ko nar jur mbirum góor jigéen la parce que ngeen ñu ko da ngeen ñu ko bëgg a imposer te duñu ko nangu parce que bokkuñu gis-gis bokkuñu façon muy dundin bokkuñu gëm-gëm bokkuñu culture bokkuñu aada cosaan bokkuñu gëm-gëmu diine noonu ngeen koy dundee yéen mu bokk ci yéen xëy na bokk ci suñ seen société ñun bokkul ci suñu société dundeewuñ ko noonu bëggee wuñ ko noonu kon bu ngeen ñu ko bëggee imposer tas lay indi suñu diggante rupture total am ngeen aw nii ñu aw nii waaye deetuñu ko nam loolu moom na leer jarul sax ngeen ci sori nee nag Jean-Luc Mélenchon lii man yow xam naa ni man ak yow déggoowuñ ci waaye nañ ko nangoo noonu gérer leen ko seen bopp yéen ni ngeen koy gere ñun ñu gérer ko suñu bopp nañ koy gérer ku ci nekk ak na nga sa problème yéen da ngeen a wax ne seen dëkk boobu biir France nanguwu leen fa ñaari soxna nit du am polygame fii dañ ko fi nangu man polygame la waaye nag bu may ñëw France xëy na man du ma respecter seen droit parce que bu boobaa kat bu bu boobaa da ngeen ne yéen seen réew moomu kat polygame dañ ko fay tere yéen noonu ngeen teree polygame ñun fii noonu lañ bañee li nga xamante ne moom mooy homosexualité mbirum góor jigéen kon duñ ko nangu du ngeen ñu ko imposer lii ki nga xamante ne moom mooy président Ousmane Sonko wax na ko ki nga xamante ne moom mooy Jean-Luc Mélenchon mbokk yi daa am leneen lu mu ci teg lu ëpp solo daf ko wax ni ko bëri na ci sax ah, bailleurs yi institution international yi dëkk yu mag yi bu ñu waree signé ak yow partenariat boo xamante ne dañ lay jox xaalis ngir nga defar seen réew dañ lay wax condition bi liy tax ñu nangu ba ñu signé ak partenariat boobu mooy nga nangu légaliser lii nga xamante ne moom mooy mbirum góor jigéen Ousmane Sonko nee na ko loolu ñun duñ ko nangu te duñ ko signé jarul sax mu ciy sori parce que ñu duñu nangu loolu dafa jeex ci réew mi lii mbokk yi président Ousmane ko wax da ko ki nga xamante ne moom mooy Jean-Luc nee na ko ñun. ak yéen bu ngeen ñu bëggee imposer homosexualité ñun ñu tas nee na ko ñun ak yéen ni ngeen a dundee yéen seen homosexualité seen problème la ñun dunduñ ko noonu ñun yéen nee ngeen nangu leen góor am ñaari soxna ñun dañ koy dund yéen noonu ngeen ko bañee. ne du ngeen ko appliqué ñun noonu la ñu bañee góor jigéen ne duñ ko appliqué kon loolu na leer loolu président Ousmane Sonko wax na ko ki nga xamante ne moom mooy Jean-Luc Mélenchon waaye nee dee da ngeen yor seen xaalis bëgg ñëw koo jox ne kat pour ngeen nanguñu koo jox faw ñu signé li nga xamante ne mooy mbirum góor jigéen jël leen seen xaalis yóbbu ko ca xacc soxlawuñu ko parce que ñun gëmuñu ne yéen yooyu ngeen ñu ko yéen yooyu ngeen ñu bëgg a imposé dañ koy doxal ndax dañoo am gëm-gëm am diine am culture am aada ak cosaan am histoire am façon doxalin boo xamante ne moom la ñuy doxalee te loolu dara du ko changé bu ngeen ko bëgg imposer tas la ñuy def waaye duñ ci ànd ak yéen kii di président Ousmane Sonko wax na ko ci tubaab ki nga xamante ne moom mooy Jean-Luc nee na ko waaye yéen France sax li muy def moo gën a garaaw ñi nga xam na ay jullit lañ dañ leen stigmatiser ne leen ni ngeen di solo baaxul parce que bokkul suñu mode de vie waaye yéen France bu dee yéen a jéem naan. diw ni muy soloo baaxul bokkul ak suñu mode de vie ah France yéen am mode de vie xanaa ñun amuñu ko seen mode de vie boobu nayam France gis-gis boobu seen gis-gis la bokkul ak suñu gis-gis ñun tamit dañoo am mode de vie ak façon de faire lii ki nga xamante ne moom mooy président Ousmane Sonko mbokk yi wax na ko Jean-Luc Mélenchon nee na ko nag Sénégal te lii ci français nii la ko ko waxee dama leen koy liiral ba pare wax ko ci wolof le Sénégal et beaucoup de pays africains ne peuvent accepter une quelconque velléité de la légalisation de l'homosexualité am na benn ku may envoyé léegi ne ma casus belli moo gën a sax garaaw tas casus belli mën na indi sax guerre diggante dëkk ak dëkk mooy xuloo nañu xeex nañ dañuy dem ger président Ousmane Sonko kon mbokk yi li mu wax sax nee na bi ngeen ñu bëggee imposer yéen li nga xam ne mooy homosexualité mën nañu jural sax guerre suñu diggante rek waaye duñ ko nangu. te ki ma ki ma envoyé lii mbokk yi déggantuwul tubaab de moom la ma firi léegi bind ma ko message pour ma xool ko nee na ma casus belli gën na garaaw tas xam nga tas kii day aw nii ki aw nii mais sax dañ fay nar a def guerre bu ngeen moytuwul te président Ousmane Sonko nee na buñ moytuwul guerre bi nar a am coow li nar a am diggante ñun ak Europe ñun ak le monde occidental mooy ñu bëgg ñoo force li nga xamante ne moom mooy mbirum góor jigéen te duñ leen ko nangul beneen bi mu ne leen ñun Sénégal ak yeneen dëkk africain yi. du duñu mënuñoo nangu te duñu nangu lépp loo xamante ne day jublu ngir ñu légaliser li nga xamante ne moom mooy ex homosexualité maanaam mbirum góor jigéen lii président Ousmane ko wax na ko kii nga xamante ne moom mooy Jean-Luc Mélenchon mu teg ci ne ko ñun mbirum góor jigéen daa am nuñ ko mën di gérer nuñ ko xamee woon te lii may bëgg wax nag noo mënti sant mbokk yi foo mënti bokk organisation boo mënti yor. nga ne dangaa am déception wala tu es déçu ou pas bu dee noonu nga ko gisoo waxoo dëgg li nga wax du dëgg ay kàcc la parce que man maa nga fa woon te yamuma ca de na ma fa toogee woon dama ne xëy na am na lu ma déggul damaa ñëw sama kër tegaat ngir mi dégluwaat ki nga xamante ne moom mooy le président de Pastef Ousmane Sonko mu ko dégluwaatee dama ne mais Sénégal ñoo bëri caaxaan ñii ñoo naafeq ñii ñoo ñàkk bëgg dëgg te ñàkk gis dëgg. li fi président Ousmane ko wax yëpp dal ko ci kaw ñi ñi nga kii di Jean-Luc Mélenchon nga xam ne ganam la nu ko déggoo wuñ ci te duñ ko nangu ñoom seenuk naafeq ak bañ dëgg tax na ñu dem uti ji leneen ngir sosalee ko ko naan dañoo am déception génn di wax ku ko ci wax waxoo dëgg ay kàcc la ak koo mënti doon na noo mënti sant ak foo mënti bokk ak foo mënti dëkk parce que dëgg bu jëlee nees ko wax trop so trop li xew ci dëkk bi bëgguñu am benn arrogance jàmm la ñu woote bi ñëwee ba tey dañoo ànd ak dal daannekat nañu defar réew mi ñëpp ñu ànd defar réew mi ndax ñun ñëpp ko bokk xëy na ñàkk déggoo mën naa bi ñekk ci opposition bi waaye tey yàlla ñun la jox nguur yi kon jarul jaay doole kenn vengeance amul xuloo amul xeex amul nañu ànd defar réew mi réew mi nekk benn waaye ñu ñu ko séqal ñooy baadoola na ma yàlla baal ndax baadoola weesawul kilifa toog wax jii mu wax nga ne dégg nga tubaab déglu lépp jël ci benn parti boo xamante ne ça n'a rien à voir ak la mu wax nga ci wax say kàcc di ko yóbbu foo xamante ne waxu ko te ne kenn du la ko wax loolu mooy li nga xamante ne moo yàq réew mi na ma nañ ma baal ci kàddu yi bi mu nee mbirum góor jigéen dafa am lu ñu ko rek ñun suñu réew yi li may wax nag ñun ñëpp ko xam kuñ daan gis ngay taasu wala ngay dem ci sabar yi wala ngay toog ci jigéen yi wala sa kàddu wala sa waxin xaw a jigéene ñun kooku lañ daan tuddee góor jigéen dafa amoon suñu société amuñu woon benn problème ak genre googu waaye dañ daan xoolu góor jigéen bale kefe mu dem yoonam tubaab bi nag li mu dégg ci góor jigéen moom muy sëy seen biir ñun xamuñu ko du suñu culture dégguñu ko xamuñu ko mësuñu ko dund loolu xamuñu ko du suñu mbir koo ko wax danaan subhanallah waaye xamoon nañu par contre góor boo xamante day nekk ci sabar yi nekk ci jigéen ñi seen mbaxalu góor jigéen xaw ma yooyu sax dañ ko daan wax toog seen biir loolu amuloon benn problème te suñu société parce que loolu dong lañ ca xamoon xamuñ ci woon ay see góor ak góor déedéet góor bu doon nekk ci jigéen ñi kàddoom xaw a jigéene ay doxalinam ak waxinam xaw a jigéene ñun kooku lañ tuddee woon góor jigéen président Ousmane Sonko mu ne genre boobu la xam te toléré woon nañ ko suñu société ku wax leneen lu dul lii waxoo dëgg mbokk yi pour tënk wax bi lii la président Ousmane Sonko wax lii mooy li mu wax Jean-Luc Mélenchon avec fermeté waaye mbokk yi li ma fi wax yëpp lan moo fi nekkul intérêt Sénégal moo fi nekkul intérêt Afrique lan moo fi nekkul fullaak fayda goo xamante ne dañoo bëgg réew mi jëm ca kanam lan moo fi nekkul fullaak fayda goo xamante ne ñoo bëgg ñu ñëpp ñu moom suñu bopp lii nag tey yéen ñii dañu seetaan partagé leen ko yaay ak mag ñëpp déggoo parce que suñu rajo yeeg télévision yi yu bëri yi ma dégg yii ñii luy taal ci réew mi buñ moytul suba ñoom ñoo koy taal parce que ñi defaroon réew kilifa gu toll nii mu wax premier ministre nekk président parti politique wax wax jii mu wax ci réew mi bëgg ne nañ defar réew mi lii mooy suñu culture lii mooy suñu gëm-gëm fii la ñu jëm yii duñu ko signé yii duñu ko nangu mën nañu jural lii nga bàyyi loolu yëpp dagg ca la ca gën a tuuti di ko commenté di ci wax yow ku la gën a nekk naafiq ak luy tal am réew na la jàpp parce que yow moomu it kooku nga bokk dañ waxante dëgg réew mi li fi am dafa ëpp boo ko waxee nag am na neen nuñ ko gisee am na neen nu ñu ko déggee ki nga xamante ne ba nga ñëwee jël nga suuf si dellowaat ko askan bi ña ñàkkoon ndox yaa ngi fexe ñu am ndox baykat yi jox nga leen seen àq delloo leen seen bor wàññi leen li nga xam ne moom mooy engrais yi may leen phosphate na leen naa leen accompagner lii nga xamante ne moo jëm ci wàllu rapport yi suñu alal yi ñu génnee ko ne fàng ne na yoon def liggéeyam man nii su ma jëloon alalu réew mi tey jii nii li may jege-jege Ousmane Sonko yoon teg ma ci yoon loolu mooy dëgg loolu mooy état de droit ñu am fii gan gan gi ñëw ñu ne ko kat France waru fee def lii Europe waru fee def lii du ñu ñoo war moom suñu bopp suñuy ressources ñoo ko moom accord de défense yi dañ war a xoolaat France base militaire yi def fi war a jóg doo jaay doole gi ngeen daan def dafay jeex mbirum góor jigéen seen façon la suñu façon duñu ko nangu loolu yëpp ñu wax leen ko expliquer leen ko leeralal leen ko ba lépp leer am ñun ñoo xamante ne ay naafeq lañu hypocrite duñu waxkatu dëgg am na ñoo xam ne sax dégg naa ñu bokk ci yenn famille sax di woote famille diine waxuñ duñu ak ay waxkatu dëgg ay naafeq lañu waaye mbokk yi bu ngeen seetloo ñu génn wax ñi ci ëpp ñu ñoo xam ne dañ ñoo bañoon ëllëg tey soog a ñëw la ñoo xam ne mosuñ ñoo bëgg bi nekk ci opposition bi nag ñu tey dañuy xool fu ñu langaamu fu ñu langaamu ngir dal suñu kaw waaye ñun li ñu yitteel mooy askan bi li ñu yitteel mooy sénégalais bi sol nu mën a changer li ñu yitteel mooy ndaw ñi am liggéey li ñu yitteel mooy réew mi mën a jëm ca kanam li ñu yitteel mooy réew mi changer ci xar kanam mu ne heure liggéey ñu liggéey heure wàcc ñu wàcc ku am compétence ñu jox ko sa compétence képp koo xamante ne kat yaa ngi liggéey nga am loo def sa poos koo xamante ne bëgg nga am kër am kër koo xam ne bëgg nga gu teey nga am dund gu teey lii moo yitteel ñun bi ñu ñëwee ci réew mi te loolu la ñuy dox xuloo xeexuñu woote dara nañ defar réew mi la ñu wax waaye am ñoo xamante ne damaa jàpp ne dañoo bañ réew mi bañ réew mi weesuwul président Ousmane Sonko génn fi tenu discours bu am importance yi nii dugg ci sujet yu bëri nii yoo xamante ne képp koy africain boo ko dégloo tu es fier xam na ne lii la Afrique laaj yow ngay kat ci kat di naafeq di ko orienté ci wàll woo xamante ne waroo ko ci orienté am na koo xam ne dinaa tudd turam muy maam Mactar bu Jamra li mu naan il est déçu c'est son problème parce que li mu wax du dëgg li mu bëgg a ne président Ousmane Sonko loolu la moom maam Mactar Gueye waxul dëgg. dëgg nag bu jotee des koy wax parce que daam loo xamante ne gor moomu ko te président Ousmane Sonko kilifa la am na lu mu bëri lu mu fi dund ci réew mi ñoo ko waroon kaas-kaasuñu ko ñu muñ ko te yàlla tax ba yàlla jox ñu nguur ñu ne dañuy defar réew mi buñ bëggee defar réew mi nag bu ñu juumee ci suñu attitude boo xamante ne dañoo ne kat lii décision bi waruñu ko woon jël parce que baykat bi gisu ci boppam nappkat bi gisu ci boppam boobu ñu waxtaane ko waaye yow ñu jël décision yoo xamante ne que lépp ci askan wi la waxtaanewu leen ko génnu leen applaudir xool leen li nga xam ne moom mooy accord de pêche yi dañ ko remettre en cause képp man ne man ba ma dalee dundu Sénégal ba tey maa ngi soo ko gis ay accord de pêche yu ñu génnee daan kat ñii ñoo am droit napp ci suñuy suñuy suñuy territoire loolu yëpp am fi ñu koo rafetal magnifier ko ànd ak gouvernement bi liggéey kuy opposé wu na nga opposé wu sax ci li nga xam ne mooy décision yi ñuy jël wax ñu manquement yi parce que nit matul ñu jéem a perfectionné wu defar ko waaye ngay ñëw di sosal gor goo xamante ne la wax ak la nga wax dara du ci dëkk mbokk yi ngeen baal ñu ci kàddu yi nga xamante ne xëy na rëcc nañ li ñu yéene rek mooy defar réew mi ba réew mi baax ñu ñëpp ñu ànd defar ba askanu Sénégal foo mënti bokkat ak koo mënti doon nga yëg na kat yitte bi ñu defoon. ci suñu cadre de communication bañ nekkee ci opposition yitte boobu lañ ci defaat bi yéen ñëpp ngeen mën a am la bonne information wax dëgg neex yàlla leneen li ci des rek mooy man personnellement ba ak luñ ci mën ci fekk dinañ jël suñu responsabilité di communiquer ak yéen dinañ dajale ay conseil des ministres wax leen wax leen décision yi nga xamante ne moom lañ ci jël dinañ dajee ak kilifa yi nga xamante ne jël nañ yenn décision yi ci yenn ministères yi di leen laaj nañ ñu jox ñu information yeeg arrêté yeeg yi ñu waxtaan ak yéen jox leen ko faram-fàcceel leen ci wolof ba bu ci nekk décision bu ci nekk ka mu ñor ka nga xamante ne moom la ñor ci secteur ba mu nekk baykat ba nappkat ba menuisier ba artiste ba journaliste ba ku ci nekk fa nga bokk ak fa nga ne nga mën cee gis te bopp xam ne décision bii kat xëy na yow la concerne ñu faram-fàcceel la ko ci wolof ba nga xamkat kat ne nguurug Sénégal ka nekk ca booba di président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ak son premier ministre Ousmane Sonko jël nañ yii décision et que yow concerné na kat parce que ci secteur bii nga bokk et que kat lii la wax lii moo ciy sax njariñ loolu dinañ ci taxaw des na ci liggéey di jéggalu ci li nga xamante ne manqué woon na ci wàllu communication en tout cas nous de notre part de notre part parce que dañoo waxoon ne nañu observé tuuti waaye incha allahu rabbi danañ continuer ak yéen ànd ak yéen ci wàllum communication doxalin bi nag cette fois yi nekkatul di critiquer déedéet ko passé nañu ko waaye dinañ nekk ci proposition waaye dinañ leen xamal yépp décision yoo xamante ne jëlees na ko te muy jariñ askan bi jërë ngeen jëf ci ànd bi nga xamante ne ànd ngeen kook ñun ci jot na média Group jërë ngeen jëf ànd bi nga xamante ne ànd ngeen kook ñun ci suñu page Facebook di leen jox dig daje incha allah yeneen jour yeneen occasion pour ñu waxtaan ak yéen ci li nga xamante ne njëriñal askan wi la njëriñal Sénégal la ngir Sénégal mën a jëm ca kanam ñun ñëpp ñu bokk ko opposition comme pouvoir ku ci nekk foo mënti bokk nga gis ci sa bopp yëg na kat Sénégal ñun ñëpp ko bokk et ko dafa war a jëm kanam jërë ngeen jëf.